action. waaw nga xam ni maanaam Kara sécurité. Mm-hmm. Cheikh Amadou Kara daf ko taxawal ngir maanaam euh, maanaam euh, ndem ñoom kat wax dëgg yàlla jamono boobu ñu ci bëri bëri ci dañoo newoon ci ay caaxaan. Mm-hmm. ñu na leen ci génne ku ci mbirum soldaar neex nga ñëw ci Kara sécurité bi liggéey ak Sëñ Tuubaa. kaa ne mbooleem fa xew-xew diine am na daan fa dem yor sécurité bi kaaraange gi waaye du tax ñu dóore wala ñu ñu ñu def lenn loo xamante ni sëriñ bi gërëm ko. ci biir diwaan bi la ko sëriñ bi kere mm-hmm. ndax bu doo kër gi garab la man la garab gi mooy diwaan bi léegi dafa bëri bànqaas mm-hmm. benn ci bànqaas yi mooy Kara sécurité mm-hmm. am na jeysun jeysun bi mooy ñi nga xam ne moom ngay gis ñu mel ni lu yor ay njëriñ ñoom wàllu mission yi ci la ñuy dox mission sëriñ bi mel ni tey sëñ bi dafa bëgg a yaatal benn xibaar ci réew mi ñoom ñooy wàcc ci terrain bi yaatal ko ba mu yaatu ak yeneen ak yeneen seen liggéey yaatu ay jàmbaar yoo xam ni kune ci kër bi rek euh, ràññee nga seen passé sëñ naa Ousmane ndjay moko ko jiite mm-hmm. Ousmane borom bax mi am taw sëñ bi leen sen bi bolé muy seen jëriñ mm-hmm. waye lepp téwul génnul diwan bi ndax bànqaas la ci bir mm-hmm. ci la taxawal tamit mélodie divine mélodie divine li tax mu taxawal ko moy dafa gis ni musique dafa dominer aduna bi fo dem ci aduna yaa fi dégg kundum kundum kundum fepp la ta li mën ci télé gis musique li mëna a ci ni amul lenn lu mëna mën ci aduna waaw kon nak manam sëriñ bi dal ni man à travers musique ci lay jaar loolu nag liggéey bu difficile la ndax loolu ne ko dégg na mm-hmm. waaye du li ñuy guitare yi ñuy yor ak mélodie bi moo moo neex sëñ bi ndax loolu mënu ko apporter dara mm-hmm. ndax lépp lu nit di wër rek ci teraange àdduna wala bien matériel suñu borom jox na ko jaarale ko ci ku tedd mm-hmm. waaye maanaam dafa bëgg tubaab bi fu mu déggee kundum faw mu déglu liirum dor ak ban violon moo koy joué ak ban instrument sëñ bi daal ne ci lay profité ko jàlle sama message ngir képp ku ko dégg rek maanaam maanaam maanaam mën a gëstu kii mooy kan ndax tubaab dafa dañ këpp mhm. dana gëstu lii fu jógee fu casaan di jógee dana dem ba xamale Serigne Touba mhm. waaw looloo waral mu taxawal mélodie divine an nagamat al la taxawal tamit eh, lii di tudd lii tudd euh, bamba fépp mhm. ci biir diwaan bi bamba fépp nag banqaas la boo xam ne nag moo sut ci mbooleem banqaas yi ci garab gi waaye nag dafa sut yeneen banqaas yi morom ndax turwee tax projet de société la boo xamante ni sëriñ bi da koo teg ngir ñu mën a apporter dara suñu réew mhm. ndax américain bi dafa waxoon nit ki dafa roxool li ko li muy defal réew li muy njariñ réewam waaye euh, wër ta toog rek di xaar réewam defal ko mhm. moo tax Cheikh Amadou Kara taxawal Bamba fépp mu doon projet de société boo xamante ni lépp luy développement te yàlla daganal ko dañ ci dañ ci dugg mhm. moo xam am mbay la moo xam euh, fexe Bamba hôpital Bamba fépp banque Bamba fépp o minérale Bamba fépp yaa ngi koy dégg ci temps la rek waaye am na yeneen yu des coordinateur bi mooy Seydina Ousmane Borom Mbaax mi mu tudd léegi suñu mag ñu koy ñuy profité di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax euh, loolu mooy Bamba Fépp nga xam ci mbirum développement rek lay dox mm-hmm. ak mbirum social mm-hmm. naka la ñuy def bay dimbalaat suñu biir naka la ñuy def ba suñu participation ci réew mi ak ci Afrique ak adduna bi yëpp maanaam crise bi tubaab yi nekkee mm-hmm. à travers Bamba Fépp war nañoo dem ba dimbalee leen ñoom génne leen ci ngir noo xam ne Serigne Touba kat mooy borom tey di borom ëllëg ndax ay mayam dafa laaw ba a kàpp ñëpp mhm. waaw dañ a waxabta lii min ko suulal faata mhm. masalati mhm. fala ko shukriya yaa wahaabu yàlla nee na li mu doon ñaan yàlla li mu ko doon laaj suñu borom doo ko koo jox ba jox ko loo xam ne laaju góor kon sëñ bi war naa mën a woote loo xam ni uh, lu ñëpp bokk la ndax ñëpp mën a jël seen wàllu sëñ Tuubaa la waral bàmbu fépp waxul loolu daal ci tënk mën naa ko tënk ci bàmbu fépp nag nga xam ne seen tomb yi ñuy yi ñuy ñett la muy paix justice solidarité justice mooy di maanaam fexe ba euh, am kaaraange. Mm-hmm. Ah, maanaam lépp tege ci yoon njub daal mm-hmm. yoon ah, solidarité mooy di dimbalante taawunu ala birri wa taqwa wala taawunu ala ismi wal udwan di dimbalante ci lu baax te bañ a dimbalante ci loo xam ne yàlla gërëm ko mm-hmm. loolu mooy bàmba fépp waaw ah, jotewut ak ay daayira yoo xam dañuy toog di jàng xasida ak yoon ndax loolu fi leen ko fekk waaye naka la def ba mën a dimbalante suñu biir te bañ a distinguer kii tijaan la wala murid la wala xaadir wala laayeen ñëpp xam ne sëñ waaw ah, loolu lañ bàmb fi bàmb merci léegi sëriñ bi am na loolu la jox loo xam ni hmm. fan yi yaakaar naa jóge na ci ay loxo ñëw ci yow hmm. muy wàllu diwaan bi hmm. foofu bëgg na nga ci tuuti ci yan loxo la nekk ba waaw diwaan bi moom bi ko sëriñ bi taxawalee am na ay mag ñoo xam ne ñoo ko jiite woon 95 ba 98 ci la ko dénk rakkam di maam Thierno Birahim Nooré ah, ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi téwér mu liggéey ci liggéey bu am bi ñu demee ba octobre 19 euh, octobre 2014. Mhm. Cheikh Ahmadou Kara Mbacké na ni dénk nu ko ci mbaaxam. Mhm. du nag danoo mag ci ay doomam wala dañ cee xam-xam wala dañ cee gën a jàng tax mu dénk ko déedéet danoo bëgg a dimbale rek. Mhm. na ne xam na ni ñooy gën a bi dem dafa doon lu yaatu loo xam ni partout dans le monde fépp maa nga fa te soxla sëñ bi jug du jugam yombul noonu ba fu ne mu mën faa dem. moo tax mu dénk nu liggéey boobu ngir nu jëm ndax ku ñu ko lay liggéeyloo ku nekk rek bëgg na nga jariñ ñu ngi ko jiite kon 12 euh, octobre 2014. Euh, mm-hmm. ci bis bi nga xam ne moom lañ doon wax bisu delloo njukkal ci Ahmadou Kara fii ci CICES. Mm-hmm. mu doonoon bis bu yéeme boo xam ne sëriñ bi sax teewal na ci. boobaa léegi nag ñu ngi ko ànd mbokk taalibe euh, di ko doxal fexeel sëriñ bi jox ma ndigal ni ma mbooleem loo fekkoon fexeel gën koo taaru lépp loo xam ne nag sa turandoo amoon na yéene ci jotu koo def it nga fexe ba def ko. Mm-hmm. waaw ba def loo xamante ne daal diwaan bi dañ naan dañuy ñëpp dañuy xam ne bi gàccal loolu moo waral nu takkaat suñu laxasaay ba der gi nga gis loolu waral nu takk ko ngir maanaam sëriñ bi gën noo dooleel gën noo dimbale. Mhm. ba fi nu bëgg a yóbbu liggéey bi ñu yóbbu ko fa. yóbbu ko yóbbu mhm. euh, yi nga xam ni yéen ñuy seetaan euh, di euh, ñu toog ak ngeen maam Thierno moom Cheikh Modou Kara yi Noreyni si émission bi di ligne 66 xam ngeen ni dina am ci waxtu waxtaan wi xaju ci yaakaar naa ni dana amaat beneen jotaay boo xam ni. yi nga xam ni euh, sëriñ bi jotu ko indi dana ko indi ci beneen waxtaan boo xam danañ ko amu moom te yaakaar naa ni sëriñ bi toog maam Thierno Ibrahima Fati am na euh, mbir yoo xam ni ku yaakaar na ni du jóg ba dem te zikkarul te loolu dañ ko koy ñaan mu may nu ko ndax lu am solo la loo xam ni yaakaar naa ni ñiy seetaan bu ñu ko dégloo seen xol dana sedd kon sëriñ bi ñaan la rek nga may nu baatu zikkar ànd ko gars yi euh, ngir jotaay bi ak émission bi am loo xam ni dana ci jeexantal ci ñuy seetaan. waaw bu ko defee sëñ Mourou damay jàllale benn message bu ko defee. zikkar mhm. soosu nga nu ñaan ñu jéem ci dara. Mhm. waaye message bi mooy ñu wàjjal màggalu Touba gu mag yi nga xam ni moom la ñu dëgmal. 18 mhm. safar kenn du ko fàttali kenn. bëgg mbokk taalibe yi ku ci nekk fa nga féete ka fay sa jëwrin ak la la fa war xam nga ko. nga taxaw ci taxawaay bu am solo. sëriñ bi tegu ci kenn lenn. waaye dafa bëgg rek ku ci nekk rek eh, bu dañu dëkk ci kër mm-hmm. ki fonk magal gi ki fonkul magal gi mm-hmm. néna na at mu jot ki fonk magal gi di gis limi rawé ki fonkul magal gi kon yaakaarna sagane magal gi wër ndax ni mm-hmm. lim doon wut ci yalla ak yonent bi ak ci l'islam yépp ci lako amé ah, ni dama bëgg ngeen ma ci santale sama borom kon loolu waccu ben jullit kon bokk talibé ci tour diwan sukko jaar cheikh bari sarayer ñi ngi ci soñu bokk talibé ñu gën ko wajjal bu baaxa baax ba teel teel jekk ci lépp daal bu señ bi fétta sore fekk nopi na di ñaanal Cheikh Ahmadou Kara mu yàgg fi loolu di ñaanal Cheikh Sidil Mokhtar moom la waroon sax suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li mu naal ci liggéey Sëriñ Tuubaa lépp mu àggale ko mhm. ak mbooleem xulafaa yi nekk ci réew mi bitim réew mhm. fàttewuñu kenn di ziar njabootu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké noonu gépp ci sunu xalifa jëwrin ñi di euh, Seydina Ousmane Borom Mbaax mhm. ak mbooleem koo xam ne rek maanaam bokk nañu liggéey bi di ko ànd saa su ne ci jamono bu nekk te taxul nu mas a xaddi mosunoo yoqi ñu ngi leen di gën a soññaa tey soññ suñu bopp baax a baax a baax waaw loolu moo doonaan kàddu yi kàddu yi kàddu yi kàddu yi may tëjee di wax ñëpp ci sama jëmm ji xeebu ji la mm. te lépp lu ci sëriñ bi la ndax waxtu weexat te lépp lu lu yaatoo yaatu mm. ni diwaan bi wax mm. dëgg yàlla mënoo koo tënk ci ay minute kon ñu ngi koy jéglu baax baax bëgg noonu mu gën a leer waaye yónni mu ci benn mm-hmm. jërëjëf yéen di leen sant bu baax di leen ñaanal mm-hmm. seen liggéey bi doon liggéey bu yaatu ba àdduna bépp am ci yoon waaw ba li ngeen ci seen lépp yéen a ko xam Sëriñ Tuubaa dafa leen lu kawe seen jot na ngeen ci bu baax Sëriñ Tuubaa ñaanal na képp koo xam ne jug nga ngir liggéeyal ko say bunt ubbeeku sa tay leer sa ëllëg leer hmm. waaw kon loolu moom na ci dal xel bu baax a baax hmm. eh, yàlla na nu sax ci bëggante soppante wóolante te dimbalante hmm. a Ahmadou Kara wasalaamaalaa may tamanko def